برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان delloo imam al amin ka murtadi bila wala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 teew kenn ku nekk ci turam ak ci santam di wàcce kenn ku nekk wàcc waayam di jotal tim nuyoo xadara bi yépp rawatina nuyoo alxalifa Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di nuyu mbooleem ñi fi teew mën naa wax sax ne maa ngi jiital ñi nga xam ne tudduñ leen ci seen tur maa ngi nuyu suñuy gan yi tedd yi fi nekk Chérif Hamza nga xam ne miin ngeen ko Tijaani suñu nijaay Sëriñ Mbay Ñas suñu mag Cheikh Ibrahim ni Cheikh Alxaaji Abdoulaye Imaam Tayba Ñaseen di nuyu suñu mag ba tey suñu xarit Sëriñ Maodo Cissé suñu mag Cheikh Ahmed ibn Cheikh Alxaaj Abdullahi di nuyu mboolem ñi fi teew góor ñi ak jigéen ñi ñu ngi nuyu jigéen ñi soxna yi ak mag ñi ak doom yi Seyda Safiya Cissé ak doomam njabooti Cheikh Hassan Seyda Fatima ak Seyda Umama di nuyu seen yaay Seyda Ami Gaye waaye di nuyu tim ambassadeur Seyda Maymuna Diop di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi muqaddam yi Cheikh Saïd Sall Seyd Cheikh Seydou Cissé Seyd Mbaye Ciss di sant yàlla ci jotaay bi nga xam ne jamiyat nasrul ilm nga xam ne al imam Syekh Hasan Sise moko sosoon jox ko mbooloo mii nii nga xam ne fekkoon ne ci kanamam rek lay la ñuy liggéeyee bu demee bàyyi nañ liggéey boobu waaye mu ngi yokk waxtu wu ndax maa kaana lillaahi jaama wattasala wa maa kaana li gayri wa infasala kon liggéey bi yàlla moo ko waral yàlla lu mu waral loolu yàlla moo koy téyel boppam ñu ngi nuy tim Seyda eh, Ndey Cissé mu ngi nuy di agsi ak eh, yaayam Seyda Mariama Niass di ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ànd ak ñun Cheikh Khalil Muxtaar Niass ak ñi ànd ak moom ak rakam ñoom ñëpp ñu teew sëriñ Aliou Diouf ñoom ñëpp Maître Thiam di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may jotaay bu tedd bi ci weer bu tedd bi ci mbooloo mu tedd bi nga xam ne euh, mbooloo yi lislaam la mbooloo mutahabina fi zatillahi tabaraka wa taala ne nuyu jigéen ñi nasralil mi nuyu seen góor ñi rawatina sëriñ Moustapha Sané Konte Cheikh Omar Thiam ñoom ñëpp nga xam ne euh, Lamine bay nga xam ne dëgg-dëgg ñooy jàppale jigéen ñi ci liggéey bi waaye jigéen ñi ñoo ko jàpp boo déggee jàppale mooy dafa am ku yow nga ñëw jàppale ñoom ñooy jàppale jigéen ñi waaye jigéen ñi ñoo ko jàpp moo tax buñ doon nuyoo kon dañoo war a nuyoo nii euh, tubaab yi nuyoo nuyu jigéen ñi door a nuyu góor ñi bu fekkee nañ ko bët bu set tim jotaayu jigéen ñi war nañ nuyu jigéen ñi door a nuyu góor ndax dañ leen cee jàppale waaye ñoom ñoo ko jàpp ñu ngi nuyu seen góor ñëpp nag nga xam ne dëgg-dëgg muy baax ba léegi ñëpp ñoo ci jàpp pour mu baax inna nisaa shaqaa'iqu rijaal yi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jigéen ñi ñooy genn wàlli góor ñi ñooy genn wàlli société bi ñooñu ñëpp nag la lislaam defar pour ñi am société civile bu baax ñooñu ñëpp na lislaam defar euh, pour ñu am euh, mbooloo yi diine bu baax ñu ngi nuyu euh, <coughs> colonel Thiam ak Serigne Mbaye président Nasrul Ilm Cheikh Cissé Diop sax ngi doon di dund ñoom ñëpp diine lislaam diine la boo xam ne bi ñëw dëgg-dëgg fekk na diine yi jaar nañ fi lool diine ak nite dañoo ànd ba am xalaatkat yoo xam ne dañoo jàpp ne diine ci yëg-yëgi nit la bokk nga xam ne te loolu taarix daf koy dëggal ndax dëkk yi gën a yàgg ci cosaan waxtu wooy fa nit ñi defee ay gëstu faw dañ fa fekk ay barab yi jaamukati yàlla <coughs> ni ñu juguñu rekk defar ay barab fajukaay waaye foo dem rekk danga fekk ay barabu jaamukati yàlla naka jekk kon gëm na yàlla dafa am moog nitee ñoom ñoo ànd li tax lool moog nitee ànd mooy nit dafa ñëw rekk yëg moom ak manque ci boppam mu yëg kàttan goo xam ne nii moo ko supérieur mu war a mottali manque manque boobu nga xam ne moom moo nekk ci boppam loolu tax naka jëkk nit dafay dafay seet yàlla dafay tudd yàlla ci man na koo tudd ci façon tour bu nek man na man na koo réeree ba jël safara ne mooy yalla man na koo réeree ba jël ben bant ne mooy yalla man na koo réeree ba jël ben doj ne mooy yalla man na koo réeree ba jël ben ndox ne mooy yalla man na koo réeree ba jël ben cieur sax ci doomi adama ne mooy yalla nit man na koo réeree ba yar nit ba mag mu ne ki moy sama yalla te ba legui ba léegi nii loolu mu ngi am ci àddina bi yar nit ba màgg ñi ne kii mooy yàlla boo demee ci ba dañ fekk Dalai ma dañ koy yar ba mu màgg ñu ne mooy yàlla ji te mu ngi am yaay moom it am yàlla ji muy dem di taxaw kon nit ak nit ak gëm yàlla dafa am ñoo fi nekk moo tax yonentu yi seen oote duutoon pour ñëw ne saxal ne yàlla am na li ko jekk yàlla moom nit ñi xam nañ ne am wala in saaltahu man xalaqa samaawaati wal ard la yaquluna allah boobu yàlla mu ngi wax ci mushrikiin yi ne boo leen laajee ku bind asamaan ak suuf ñu ne la yàlla kon ñoom amuñoon problème ndax yàlla am na waaye seen problème mu ci bokkaale yàlla kon yonent yëpp dañoo ñëw pour oote nit ñi shara lakum min ad-diini maa wasaa bihi nuuhan wallazii awxaynaa ilayka wa maa wasaynaa bihi وما وصينا به إبراهيم موسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه li nga xam ne moom lañ laa leen sharial ci diine ak li nga xam ne moom lañ yónni ibrahima li nga xam ne moom lañ yónni nuux maa wasa sara alakum ne diin maa wasa bi nuux wala waxinaa ilayka wa wasaynaa bi ibrahima musa wa isa an aqimu diina wala tafarraqu fi dama leen a sharial ci diine li nga xam ne moom laa dénk moom laa wàcce ci nuux ibrahim ak musa ak isa lan la la yonent bi la yàlla wax ne ko li ma yónni ñooñu moom laa la yónni mooy ngeen taxawal diina ji ban cee moo tax diina ji benn la diine yonent yépp doon oote benn la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw mu gëm leen ñoom ñëpp amana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñ tàggale kenn ci yonent yooyu lislaam nag moo ñëw ub yoon woowu mottali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne meloom ak yeneen yonent yi si nga ñeenti ñooñu yàlla tund foofu ñoom ak yonent bi sallallahu alayhi wa a ñoom ñooy ulul azmi min ar-rusul ñooy gën ci yonent yi ki gën ci yonent yi mooy yonent yàlla Muhammad Ibrahima tegu ci Moussa tegu ci Isa tegu ci Nuuh tegu ci dafa gëm ñooñu ñëpp gëm li yàlla yónni ci ñoom waaye balaa ñëw fekk na fi doomi aadama jaar ci jafe-jafe ci ut yàlla yàlla bañ koo bàyyee bopam di ko yónni ay yonent ñi koy diko di ko won yoon muy jàpp ba ci kanam ko loolu bu gëjee gis loolu réeree yoon yàlla yónnee ko keneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dafa mel ni moom ak yonent yi dafa mel ni ku tabax néeg bu rafet ba mu des barab bu benn mool rek ñi bàyyi ko ko rombu rek ne ndaw euh, néeg bu rafet bu taxutoon ak mool bii ci wàññeeku mu ne moom sallallahu alayhi wa sallam nim yonent yi ni mottalee yonent yi la mottalee li nga xam ne moo des ci liñ doon indi ndax téere bi yépp alxuraan lii rek la làmboo ci mbambëstan aqida mooy pas-pas bi nga xam ne moom lay oote jëme nit ñi ci jaamu yàlla bi nga xam ne moom kenn la waruñ koo booleeg leneen ak sharia bi nga xam ne moom la indi muy muy loi yi nga xam ne moom la dund bi di doxee ak nag axlaaq jikko yi nga xam ne nii moom mooy mottali nit ñi ba mottali leen li nga xam ne nii maanaam léeg-léeg loi leen ko tegal jikko yooyu nga xam ne daf lay mottali loo xam ne nii ma yarab lislaam bi nga xam ne daf koy dalee ci yar yar nit pour nit ki xéwén nit ki nekk ku baax koo xam ne bu gisut polis gisut ku amee xet di ko war a sàmm moom dana am yar bu mag ci boppam boo xam ne yar boobu dana dem ba nekk sàmmkat boo xam ne daf koy sàmm boo xam ne kenn nekkut fa nit kooku bu baaxee fami ñëw baax dafay yaroo juddoo ci jaww ju baax ña fay juddoo baax ci la ñuy mën a am dëkk bu baax dëkk bu baax nag pour mu am nit ñu baax ñoo fi nekk waaye dana am ay yoon yoo xam ne nii moom la ñuy teg pour baaxal nit ñi am ay jikko yoo xam ne nii ay euh, loi yoo xam ne dafay nit ñi dañ ciy dox waaye muy am ay jikko yoo xam ne ti moom mooy mën a sàmm Euh, yooyu noonu pour nit ñi nekk ci jàmm ma ne doomi aadama nu mu sonnee ci gëstu pour ut dëgg naka nga xamee ne doomi aadama mas naa nekk xale ci xam-xam mas a nekk xale ci civilisation noonu la masee nekk xale ci pas noonu la mas a nekk xale ci diine noonu la masee nekk xale tim ci loi yi nga xam ne moom lay tëral noonu la ma see nekk xale ci jikko yi nga xam ne ni moom mooy dundee ci àddina bi xeli doomi aadama màggee ànd ak fekk rooxoom màgg màggaay goo xam ne ni màggaayi rooxo googu dootul yokk lu ko ëpp dootul ñëw ci màggaayi rooxo te rooxo lu xel màgg màgg lu xam-xam màgg màgg fekk rooxo gi moom màgg na ba pare boobaa xel moomu ak xam-xam boobu roho gu mag gogu toujours moo koy ilif motax bi nga xamé ne magay roho àgg na fim wara ag muy ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam yàlla yoni ko risala bim ko yoni wax ko ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina tay motalil na len sama xewal matal naa mottal sama dine matal naa sama xéewal ci yéen def naa lislaam gërëm naa lislaam mooy seen diine moo tax lu àddina évoluer lu évoluer évoluer évolution bi du àgg ba passé lislaam nit ñi ñoom ñooy wàññeeku ba duñ àgg ci li leen lislaam tëralal mais àddina du dem ba passé li nga xam ne moom la lislaam indil nit ñi moo tax bi yàlla yónnee yonentu boobu rek sallallahu alayhi wa sallam téere bi mu ko yónnee maa farat naa fil kitaabi min shay amul dara luñ bàyyi ci téere bi yaay man a jël wala loo mën a mën a koo jël waaye téere bi lépp a ngi ci ba yàlla yónnee yonent boobu yónnee tut beneen yonent daf ko yónni pour mu ñëw mottali jikko yu rafet yi innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq yàlla daf maa yónni pour ma ñëw mottali jikko yi jikko yu rafet yi boo dégloo kenn ci ñi nga xam ne dañ leen laaj ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jaafar bin abi taalibin bi nga xamee ne ñoom dem nañ xabashi xam ne xatal nañ leen ci seen diine ñi daw dem ci xabashi yonentu bi wax leen ne buuran fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ kenn fi moom gis nga nguur waxtu woo xamee ne dafa aju ci ñàkk a tooñ boroom xam-xam yi lislaam dañoo wax ne xéeféer nguur ak xéeféer boo xam ne du tooñ moo gën a mën a jubal nguur ak jullit boo xam ne dafay tooñ moo tax li gën a mën a sauver société bi mooy mu taxaw ci système boo xam ne nii du tooñ waaye duñ tooñ kenn fi mu du tooñ moom ci boppam waaye keneen ku tooñ tim ñi tëral teg la ci yoon parce que doomi aadama yi comme dañoo manqué yàlla bindee leen seen manqué googu ñuy tooñante il faut mu am ay loi yuñ tëral ay yoon yuñ tëral gannaaw buñ digalee gannaaw buñ aayee waaye il faut am yoo xam ne dañ koy teg nag kuñ digal defoo kuñ aayee bàyyiwoo ñu am fuñ la jaarale loolu mooy nguur goo xam ne du tooñ duñ tooñ fi moom ci kooku la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ebaloon nga xam ne boobu mu ngi ci euh, diine yi euh, la nekk boobu waxtaan bi jaar ak moom ak jaafar lépp taxuñoo jug duñ ko mën a wax waaye bi ko jaafar laajee bi bi bi najaashiw laajee jaafar ne ko yonentu boobu lum leen di digal gannaaw boo xamee ne dañ leen di kappaseeg moom ne leen ñii nii dañoo dëngee seeni kilifa te ñu ngi ñëw fii di weddi sa diine yi andu ñok yow ci li ngay nek jaafar daf ne ko ñun dañoo nekkoon kunna xawman ahla jahiliyati ay nit yi réer lañ nekkoon te jahiliya du réer rek waaye mooy ñuy tooñ ala la yajhalan ahadan alayna fa najhalu fawqa jahli ljahilina la amar ibnul kasum waxoon luñ doon def mooy naabudul aslaama dañ doon jaamu ay xërëm naakulul maytata dañ doon lekk ay médd natil fawaaxisha dañ doon ñëwee jikkoy ñaaw yépp njaaloog la ca tegu sàccëg yu bon yooyu yépp naqtaawul arxaama di dagg mbokk nu siiwul jiwaara ñiy ñaawal dëkkandoor yaakulul qawiyu minna daifa ku am doole rek lekk ku doole ni ki àddinaay jën mu ne noonu lañ meloon ba yàlla yónni ci ñun yonentu boo xam ne ci ñun la bokk xam nañ askanam xam nañ dëggoom xam kóllëreem xam fegoom mu ooñu nag jëm ci wéetal yàlla ak jaamu yàlla summeeku ci li nga xam ne moom la suñ bàyyi doon oote di ko jaamu di jaamu ay doj di jaamu ay xërëm mu digal ñu bu ñuy wax nañ wax dëgg digal ñu joxe kóllëre digal ñu jokku mbokku digal ñu rafetal dëkkandoor digal ñu fegu wëlis lépp yu xaraam digal ñu bàyyi tuur deret yi tere ñu ñaawteef yi yu bon yépp tere ñu wax loo xam ne fen la tere ñu lekk alali jirim yi tere ñu saaga tuumaal jigéen ñi nga xam ne nii ñu fegu lañ loolu boo ko seetee li abbas wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci loolu la leen oo yooyu yëpp da nga gis ne buñ ko defee ci suñ dund bi ñuy dund dund bi dana jaar ci yoon kon loolu wax nañu ci gàttal li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la fekkoon ci ay yàq waaye li nga xam ne moom la ko remplacé boo waxee ne abbas boobu saxaaba yonentu la mbokk yonentu bi la sallallahu alayhi wasallam waaye boo dégloo keneen koo xam ne Abu Sufyaan jamono bi ko Hiraql di laaj ci yonent bi laaj ko fukki laaj yoo xam ne mënu cee wax benn mënu cee taqal yonent bi lu ñaaw daf ko rek lan la leen di digal seen yonent boobu lu mu leen di digal mu ne daf naa ñu jaamu leen yàlla bañ ko bokkaale ak dara na ngeen bàyyi li seen bàyyi doon wax def ñuy digal julli di ñu digal saraxe di ñu digal fegu di ñu digal jokk mbokk loolu ab noonam boo xam ne yàqal ko la bëggoon moom lañ laaj li tax mënta wax lu may wax ju rafet jooju parce que buur bi dafa wax ne mbokkam yi ne jege leen ko bu waxee fen ngeen ma fen na mu ne mën na comme ragal naa ñi konteel ma benn fen moo tax mënu woon a fen ci affaire bi bu taxutoon ak loolu dana ko fenal foofu ay fen mu ne bam mu ko laajee ndax dana uruj mu ne du uruj waaye daal ñu ngi ci jubóo bu bees ñun ak moom waaye xamuñ loolu xamuñ boobu daal lan la ciy def mu ne boobu rek laa amee fu ma soroxalee dara loolu noon moo ko wax kon kooku dafa ñëw ak jikko bu mat ba pare nag ñëw pour yar jikko boobu ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko ñoo ànd ak moom dama wax ma ne yari lislaam nit ki lay yar ci jikko yu baax yi nga xam ne moom la yonentu bi sallallahu alayhi wa indi nit ki du fen nit ki du xuruj nit ki du sàcc nit ki du tooñ yàlla xaraamal na tooñ ba araamal ko ci boppam inni xaramtu zulma ala nafsi fa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu man dama xaraamal tooñ man ci sama bopp ma def ko muy loo xam ne dafa xaraam yéen ci seen diggante kon bu leen tooñante jikkoy ñaaw yooyu yépp nga xam ne lislaam daf ko aaye waaye defal ko ay yoon yoo xam ne tim moo koy faj ci nit ki jëfi lislaam yépp nga gis li ci nekk mooy dafay yar nit ki pour yóbbu ko ci jikko ju rafet julli bi nga xam ne moo ëpp importance ci jaamu yàlla yi nga xam ne bu baaxee yi ci des yëpp baax bu yàqoo li ci des yëpp yàqu lu tax njëriñam bi ci ëpp inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari julli dafay demee lu ñaaw boo gisee jullikat ñu ne moo fi dàq julli te mo fi dàq def lu ñaaw ba legi dafa julle gut waye waxtu bu julle di jaaral yoon jullem rek da nga gis jikkoom yu ñaaw yi di dem jikko yu baax di ñew ba nga gis sa waaye nak di wax ne mom de xawma lu ko soppi fekk lu baax li nga xamne mom la nek di jang alquran di tudd yalla bu tudde yalla yalla tuddu ko bu yange alquran yalla fay ko ay jëf yu rafet jëf yu rafet da fay fas ay jëfam yu ñaaw inna alxasanaati yuzhibna sayyiaati jëf yu rafet yi dafay fa yàlla tuddee daf lay tudd ci dayoom tudd boobu mu lay tudd ci dayoom daf lay jegeel péyam ba nga koy sujjóot di ko jege wa sujjóot waqtarib boo sujjóotee nga jege yàlla boo sujjóotee jege yàlla loolu daf lay wàll jikko yu rafet yi nga xam ne péeb yàlla bi lépp dafa sell lu ñaaw amu ci ku ko bëgg ku fa bëgg dëkk moo tax ku fa bëgg dëkk force da ngay dëkk ci sell bu dëkkee ci yow tim te selloo dana la bàyyi dem dëkk ci leneen dëkk feneen yàlla nee na bu may yurdoo xoli sama jaam bi gisuma ci bëgg leneen lu may man ma dëkkee ko waaye bu ma ci gisee leneen rek ma bàyyi ko nga xam ne kon bokkaale bi ngay bokkaale yàlla sax ñaawteef bi mu gën a ñaaw rek mooy li nga indi leneen lu ma yàlla tabaraka wa taala boole koog yàlla mi nga xam ne moom xeeyoohut lu may wéet yar bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def sayyidatuna dafa wax ne yonent bi sallallahu masta nattu ci benn saxaaba fen lu may dëñut di toppatoo mbiri kooku di toppatoo mbiri ba xam ne tàggalikoo ak fen dañu di toppatoo mbiri kooku lu may ba mu dem ba xam ne tàggalikoo na ak fen ndax moo gën a ñaaw ci jikko yi yar boobu di yar nit ki ba nga xam ne dafay baax du fen du tooñ teg lu nekk fu mu war a nekk daf ko jaarale ci yar xolab doomi aadama bi ba nga xam ne bu xéwénee li ci des yëpp xéwén ala inna fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb yonent sallallahu alayhi wa jëmuji lumbang ci bo xamne bu baxé jëmuji yeb bax bu yaqo jëmuji yeb yaqo lolu mom moy xol te kenn du jëriñ nit ëlëk ci yàlla lu may koo xam daf ko ñëwal yawma la yanfa malun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim bis bi nga xamne alal du jëriñ doom du jëriñ lu may koo xam ku alal di jëriñ wala ku doom ji jëriñ parce que alquran amna fum la wax ne la alal da la may nangal lu fi wax ne yoon su jangal na doom ju bax da la may nangal waye lool yeb dula ko may lu may nga dikkel yalla and ak xol bu sel tax yari l'islam yi pour xol bi sel moo cheikh ibrahim radhiyallahu anhu wax ci ay waxam ben kum doon bind ne ko man aw ma benn itte lu may defar benn benn yu mel ni yow nga xam ne buñ baaxee ñu bëri baaxee ci ñoom ne ko yonent salaay salaam wax ne ne yàlla jubal ci yow benn nit moo gën foor maanaam alali àddina yëpp leen yahdi allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumri naami mu ne ko man bu ma yàlla joxoon ndigal pour ma soppandiku bàyyi mooy wax danaa yëkkati suma itte ci soppandiku ci leneen lu may defar xol yi te moom wax nañu ne yàlla jox na ko ndigal ci tasarruf xassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kul yakun bila taswifi nga xam ne kon itteem bi yépp mooy defar xol yi gannaaw boo xamee ne moom defarul na nam war a defaru ak lam baax yépp dundam lépp mu ngi sàmmanteeg loolu imaam Xasan wax na ne mu ne ànd naag bàyyi ci Seydina al Xuseyn jumaay Seydina al Xuseyn ci Qaahira nga xam ne asaar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay jeexi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga fa mu ne lu ñu ëkkati rek bàyyi ne tegal ci xol bi ndax mu xéwén tegal ci xol bi ndax mu xéwén xol boobu xéwén na waaye mu ngi jàngal ñi koy topp ne buñ sàggan mukk ba jàpp ne am na fu ñu war a àgg pour sàgganee xéwénal xol comme ni mu ko waxee ci ay dénkaaneem ne na ngeen góorgóorlu ba kenn ci yéen bakkanam bi du ko wax ne ko àgg nga ci maqaama boo xam ne fi mu ne yow mën ngaa ñàkk jëf lu baax xatta la tuxaddisuhu nafsuhu bi annahu wasala ila maqaamin yugnihi an il amal nangeen ngeen na ngeen seen bakkan bi ba kenn ci yéen bakkanam du ko nax bés won ko ne ko yow yow fi mu ne am nga maqaama boo xam ne bu la neexee gars yi di def lu baax doo def lu baax bu la mën ngaa fen te du la wàññi dara mën ngaa xuruj te la wàññi dara déedéet googu maqaama kon yar xol bi yar xol boobu ci la lislaam ma ne di defaree nit ba nit ki di dox moom kenn te fekk mu ngi mel ni mu ngi gis maanaam nguur gi nga xam ne moo ko war a jubbanti Seydina Omar ci jamonoom dafa romb benn kër mu dégg benn jigéen di kebetu jigéen joo xam ne jëkkëram dafa tukki lu yàgg muy kebetu waaye li muy kebetu mu ngi xamale ne jigéen ji gëm yàlla moo ko sàmm moom ndax bayti bim doon wax fa wallahi lawla allahu tuxsha awaaqibu la xurrika من هذا السرير جوانب لقد طال هذا الليل واسود جانب وأرقني ألا حبيب أداعب فوالله لولا الله تخشى عواقب لحرك من هذا السرير جوانب مي وحنا ne guddi gi gudd na lëndëm gi foo nekku fi maanaam jëkkëram nekkut fa waaye moo wax loolu ba pare maanaam dafa mu jëkkëram waaye lu tax moom du mooy yàlla mooy billaahi bu taxutoon ak yàlla ragal yàlla ragal mbugalam ragal nangam kon lal bi keneen dina ko yëngal waaye lal bi keneen du ko yëngal parce que ndaw si ragal yàlla mu ngi ci moom ragal yàlla boobu mooy yar bu baax bi nga xam ne moo dem ba nekk ci damiram nga xam ne fi mu ne nii duut police lay xaar duut la loolu mooy yari naa Omar mu marqué kër gi laajte kan mooy borom kër gi ñu ne ko sa benn soldat boo xam ne yaa ko yóbbu ci front mu dem xeex ci la commencé laaj ay jigéen ci la commencé dootu yóbbu jëkkëri nit ci mission boo xam ne dana fa def lu ëpp juróom benn weer loolu yëpp pour sàmmanteeg nite pour sàmmanteeg nite parce que lislaam du diine joo xam ne dafay ñëw terewul la dara lu neex moom la dégg boo la dégg moo tax mu laajte kuy jëkkëram laajte fu ne ñu ne ko yaa ko yóbbu ca xeex ba mu gis ne kon yóbbu na ko diit bu ëpp li mu war a yóbbu jëkkëri nit mu ne dootu ko def dégg nga lislaam li tax mu nekk diine bu mën a continuer pour àddina dafa nek diine boo xam ne dafa ànd ak nit ñi ci seen bopp ànd ak nit ñi ci seen bopp mooy du diine joo xam ne daf lay wax ne la yow bu lekk lu neex parce que xam ne nit dafa bëgg lu nekk lu neex waxul la ne bul takk jabar parce que rek xam ne da ngaa bëgg a takk jabar da ngaa bëgg a da ko da nga da ngaa soxla sëy bu wax du waxut jigéen ne ko bul am jëkkër parce que xam ne daf koo soxla yu neex yi aayewul la ko waaye daf la koo tegal ci yoon boo xam ne nii mooy tax mu baax qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadi wa tayibat min rizq qul hiya alladina amanu bil xayati dunia xaalisatan qiyamati kan moo xaraamal taar yàlla yi nga xam ne la génneel jaama bi bàyyi mu ne yàlla ba mu bëggee yu baax yi bëgg yu teey bakkan te xam na ne jaam yu baax yi toujours lu leen di niiru bakkan dañ koy bañ moo tax yàlla tuddeewu ko yu teyi bakkan daf ne kan moo xaraamal taari yàlla yi nga xam ne bu ko bu yow bu fekkee bu comme yàlla nga bëgg lii taar yàlla la yàlla moo ko taaral kon taar yàlla la te yàlla aayewu la ko mu tegal la ko ci yoon bi nga xam ne moo koy moo koy am bu defee boo bëggee jabar mu ne la mën ngaa am boo bëggee jëkkër mën ngaa am boo bëggee lekk lu neex lekk lu dagan na waaye na fekk mu nekk ci li nga xam ne nii moom la la yàlla dagana la mais terewul la lu mënta nekk santul la lu mënta nekk lu mën a nekk la la sant li nga bëgg yépp tim li ci jaadu tëralal na la ko ci yoon wi nga xam ne danga nga koy am pour sàmmante yow seen nite gi loolu moo tax lislaam nekk diinul fitrati ma ne ni Seydina Omar def dégg ndaw soos di wax nga xam ne yarab lislaam moo ko yar doomam abdullah ibnu omar dal na ko parce que nit bu demee ba yari lislaam àgg ci moom kooku mooy àgg ci ki yonentu sallallahu alayhi wa sallam laajoon bu dafa laaj yonentu bi sallallahu alayhi wa saxaaba bu ñuy wax waa bi sax mu ne jiitu yonentu ne ko jiite tasalu an il birri wal ismi dangaa ñëw di laajte lu bon ak lu baax qaala qultu naam fa jamaa asaabicahu fa daraba biha sadrahu wa qaala istafti nafsaka istafti qalbaka yaa waabisa salaasan البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإسم ما حاك في النفس wa taraddada fi sadri wa in aftaaka nnaasu aftaw yonent sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko da ñëw di laajte lan mooy lu baax ak bàkkaat lan mooy lu bon ak lu baax mu ne ko waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole baaraamam dóor ko ci dënn ne laajal sa bopp laajal sa xol ñetti yoon mu ne ko laajal sa bopp laajal sa xol lu baax mooy loo xam ne sa bakkan bi dal na jëm ci sa xol bi dal na jëm ci lu bon mooy loo xam ne sa bakkan bi sa xol bi daf ciy déngi déngi daf koy dafay ñëw mu koy rejeté donte nit ñi wax nañ la ubbee la ne li baax na yow sa xol laaj ko dana la wax ndax baax na wala baax est ce que loolu xol bu nekk la kooku yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ko loolu waaye boo seetee da nga xam ne du ne xol bu nekk lay wax ndax xol bu dem ba réer bu laajee boromam daf naan ko lii baax na ndax alquran moo ñu xamal ne xol dana dem ba muuru te li koy muur mooy jëf yu ñaaw yi nga xam ne maakaanu yegg si buun xol bi nga xam ne borom dafay toggoo jëf yu ñaaw di toggoo jëf yu ñaaw ba bu déggee lu baax du xam ne baax na bu déggee lu bon du xam ne bon na kooku bu laajee xolam xolam du ko gide kon xol biñ buñ mën a laaj mooy xol bi nga xam ne nii dafa jaar ci yoon mooy xol bi nga xam ne imaan mu ngi ci xol bi nga xam ne amal saaliha mu ngi ci ñooñu la yàlla wax ne ya ayyuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana bu ngeen ragalee yàlla yàlla defal leen furqaan maanaam furqaan mooy leeri xol boo xam ne mooy xàmmee lu bon ak lu ñaaw kon ki am furqaan moo mën a laaj xolam istef ci xalbaka mu uyu parce que bu fekkoon ne dañ koo bàyyi noonu rek ku nekk rek laajal sa xol am na koo xam ne xolam lu caay-caay rek la ko wax ne ko ki jaar yoon tegu ci yoon ragal yàlla am imaan kooku la xolam di wax dëgg inna alladina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون القرآن نينا نيغا خامنا دانيو راغال يالا بو فكه شيطان صاح دا فا نيو وور وور لين مانام دي لين جاخ جاخال داني فاتليكو رك ني غيس ني غيس دك ني غيس يون بو دا با تي كانام داغا فك مو هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم maanaam ay leer la yu jugee ci seen borom waa ay ak njub ak yërmaande waaye pour kan pour ñi gëm yàlla kon ñi gëm yàlla ñoo am xol buñ mën a laaj ndax lii dëgg la wala du dëgg ñi gëm yàlla nag ñooy dem ba am xol boo xam ne def leen di surveiller fu kenn nekkut loolu moo tax yarab lislaam bi foor comme ni ma nettali jigéen ji léegi si ak Seydina Omar moom laay nettali ci xale bi léegi ak abdullah ibnu omar abdullah ibnu omar daf doon tukki naafi bi nga xam ne moom la ngi dégg ci riwaayat quran yi mawla abdullah ibnu omar la dafa ànd ak abdullah ibnu omar mu ne ñu tukki ñi dem ba ci àll mu ne ñu gis benn fero boo xam ne dafay sàmm fekk ñoom ñu ngi lal seen sufra maanaam lal seen taabal pour lekk abdullah ibnu omar ne xale bi ñëwal ci suñ taabal ji xale bi ne ko man damaa oor mu ne ko ah, ci tàngoor wi xale bi ne ko waaw man damay njëkkalanteeg damay njëkkalanteeg bés yi bés yi bés yi weet moom laay njëkkalanteeg maanaam bés bi ma mënee or xaw ma kañ laay tëlee or ba ma ko mënee manque Abdullah ibnu Omar lool gën koo xéem ci xale bi mu ne xale bi jaay ñi benn ci sa gàtt yi ñi fees ko togg ko may la ci loo dogee may la tim ci njëg gi xale bi ne ko gàtt yi moom ma suma sanga ko moom ah mu ne ko sa sang lu mu la mën a wax boo ko waxee ne ko gàtt bi dafa dee xale bi di daw yëkkati loxoom bi naan ayna allah fa ayna allah fa ayna allah sama sang bi mën naa ko wax loolu waaye ana yàlla ana yàlla ana yàlla abdullah ibnu omar ñibbisi na ba medina waye dañut mom di répéter baat bi nga xamné xale bi moko ko wax fa ayna allah parce que xam ne bobu yarab yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yarab l'islam bu baax la mu naw xale bi bëgg xale bi ba muy àgg Medina rek la laajte xale bi kan moy sangam ñu wax ko mu yónnee ci sang xale bi mu jaay ko xale bi ak gàtt yépp mu gorel xale bi may ko gàtt lolu xam nga ku bëgg yàlla ku bëgg yàlla yàlla bëgg la tim waaw man mm-hmm. yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ku ragal yàlla yàlla defal ko genn waaye ci xat-xat yi ba pare wërsëgal ko fum mu ko foogeewutoon ku bëgg yàlla tim nit ñi bëgg la inna alladina amanu wa amilu saalihaati sayaj'alu lahum rahmaanu wudda ku bëgg yàlla di def yu baax yi farata yeeg naafile yi yàlla daa la defal bëggeel ci xoli jaam yi ci bàcc yu baax yi la bokk man ibnu amar dañu di wax ne fa ayna allah li xale bi wax ba àgg moom ci foofu yar yooyu yari lislaam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ci xadis nga xam ne mu ngi ci saaxi muslim nga xam ne ñu bëri dégg nañ bàyyi di ko ni nga xam ne ñiy weddi tawassul sax jàpp nangu nañ ne mun naa nekk mooy jottaliku sa jëf yu baax ñett ñi nga xam ne dañoo tukki xadis bi dafa gudd dugg ci xuntu bunt bi benn euh, doj bu mag ñëw tëj porte bi mënuñoo génn kenn ci ñoom ne wallahi liñ nekk nii dara duñu ci génnee lu may dëggu ku nekk ci ñun na wax loo xam ne dëggu na ci ak yàlla kenn ci ñoom ne yàlla boo xamee ne man mas naa am mbindaan boo xam ne dama koo bind war koo fay te li ma ko waroon a fay benn peñe rek la maanaam tàndarma la wala diw la farak rek la moom laa ko waroon a fay gisuma ko ma jënd ci nag nag bi mu mujj nekk ay tool ab tool waa ji ñëw nee na peñe rax min urzin maanaam euh, ceeb peñeb ceeb rek la ko waroon a fay ba mu ko gisut mu ne ma jël peñe bi maanaam ceeb bi dem jikko ceeb boobu mu mujj nekk nag beele waa ji ñëw romb ne fii amoon naa fi liggéey bañ waroon maa fay benn peñe ceeb naa ñëw ñu jox ma ko ba mu ñëwee ma ne ko demal ci nag yële bu njëkk bi mu mujj nekk nag nag bi nag baqara la njëkk wax ba mu ñëwee mu ne ko imal ila tilka al baqara arab bu waxee baqaratun mooy benn nag bu waxee baqar nag mooy yu bëri demal ci nag yële kon gétt la mujj nekk ah waa ji ko man koy peñe rek laa fi amoon mu ne sa peñe boobu moo jur gétt gii nii kooku ne yàlla bu fekkee ne loolu dama koo defoon ngir ragal la man ubbil ma am lu lu puus ci doj wi maanaam wàllam moom puus na te ànd ak ñoo xam ne amuñ benn wàll ci lu ngeen lu baax lu ngeen war a musee te yow sa wàll mënu koo musal loolu gën dañu am dañuy wut yu baax wala nañ fexe bu ut mbaax gu mën a couvrir lañ war a fay ak ñoom lañ war a fay moom wàllam génn na mu des wàlli ñaar ñu ci des keneen ki ne yàlla yow bu fekkee xam nga ne man amoon naa ñaari waajur ndey ak baay yoo xam ne dañoo dem ba mag guddi gu jot ma indi leen meew ci samay gàtt ñi naan guddi ma yéex ñëw fekk nelaw nañ sama njaboot gaa ngi xiif ak sama doom yi ma ne du ma nàndal sama doom yeeg sama jabar te sama waajur wi naanagul xale yu bëri war nañ jàng loolu dañ ko jàng dañ ko waxaat mu ne du naanal jabaram ak doomam yi te waajuram naana waajuram yi naanaguñ mu ne tamit te bañ naa leen a ee di leen yàqal seen nelaw te sib naa leen a bàyyi ñi jóg di seentu meew te duñ ko gis dañu ma leen xaar ba fajar xar bi maanaam ma jox leen yàlla bu fekkee yow xam nga ne loolu dama ko defoon ngir ragal la kon ubbi moom ci wàllam wàllam ki nga xam ne ba tey tarbit damir bi ma doon wax mu ne yow yàlla bu fekkee xam nga ne dama amoon doomi baay tax maanaam cousine boo xam ne moo ma gënal nit ñépp maanaam dama ko bëgg lool jéem naa ko sàkku ci boppam jéem naa koo sàkku ci boppam mu bañ lu may danaa ko indil téeméeri dinaar ah mu ne ma ut téeméeri dinaar yi ba am ko indil ko Ah, mu bàyyee ma boppam ba ma demee ba nekk ci diggante ay tànkam mu ne ma ragalal yàlla mun ubbi xaatam bi lu may ci xàqam maanaam doo suma jëkkër waa ji ne ma jug àgguma ci kawam ma bàyyi ko ba pare bàyyee ko téeméeri dinaar yi mu yàlla bu fekkee xam nga ne loolu dama koo defoon ngir ragal la ubbil ma yàlla ubbi li des ci xunt bi yëpp xadis ji la mu ci baabu xadis al ambiya ci saxee muslim mooy xadis yi ci mujj xadisul xaari yàlla mu ne yan su weeg sallallahu alayhi wasallam moo ko nettali waa ji ne yàlla yombalal ñun ñëpp suñ génn ñoom ñëpp ñu génn ma ne ci loolu mën nañ cee jëlee jangat yu bari man nañ cee jëlé kuy baxé ay wajuram ndax té ci baxé wajuram ci la def jotliku yalla nangul ko ñi wéddi tay né nit ta def man ta ñaan ci benn kër sëriñ ta ñaan ci barkeeg nangam wéddi wuñ né nit man na ñaan ci barkeeg liggéeyam bu baax yalla defalon na sama yaay nangam tey ma ngi def bak yalla may ma ma adme loolu nag la na adme loolu fekkee defoon nga ko te la yàlla taxaw nañ ci xadis jooju ne lislaam mu ngi ci xam kóllëre waaye mu ngi xamal tim ne kóllëre ba tey mën naa may yàlla génnee jaam ci ay xat-xat ne nii jaam dugg na ci ay xat-xat ci kóllëre rek waaye daf cee teg mbaax ndax bu fekkoon kóllëre rek la dafay garder peñe ceebam ba mu ñëw rek mu ne ko sa ceeba ngi nii waaye def cee teg mbaax nag mooy jéem ko koo màggalal ba màgg kooku ragalut ko am dend ak moom ñi nga xam ne da ngay nekk ak ñoom ñu ragal nga am ndax léegi léegi tey bu amee bàyyi ma dem ber waasoom dem doo ci perte dara bu demee da nga am keneen te moom it dana nekk sa ndimbal ragal dimbale jaam ba mu taxaw jaru te du tere yàlla dimbale jaam bu mu bugg dimbali ndax jaam yi jaam yàlla lañ duñ jaami kenn denañ jàngee ci bu mujj bitim ci ndaw si ak ci waa ji yépp ndax raw si ragal yàlla moo tax muy oo waa ji ci ragal yàlla ànd ne dem na ba lottu bëgg koo yóbbu ci ma yàlla waaye la aaya ji wax ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون كلي هيتكم دا فا گم يالا بانكو فاتلي مومي گم يالا ديلو نكو تي نجوب بيغا خامني موم دون اوتي لولو موي لن لا تي يار بيغا خامني الاسلام دا فكو يار نيت كي موم سي نيت كي ممكن كين fofu la commencé pour defar famille famille mu tekko ci ay conditions yo xamne bu amé famille bi fay bax fofu lay jaaree pour defar société société bo xamne nit ku ci nek da nga am ay valeur yo xamne l'islam dafa xamale ne lolu ñëpp ñoko am te ñëpp lañ ko wara a ndax alcorane ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يالا دفنا دما ترال دومي آدم كون كو يالا ترال بون امي جانغتي الاسلام خمني كي يالا داف كو koo teral dëgg كو كين kenn war koo toroxal kon nit ku nekk am na yu yàllaa ko ko may te lislaam dafay jàngale ne loolu kenn waru koo sànk nit ki dundam kenn waru koo sànk nit ki teraangaam kenn waru koo neenal nit ki kenn waru koo xeeb ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne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 te yu bari yuy xew ci yàq ak yàqal nit ak dayoom xañ ko añaan moo ko sos ndax xaabil sax ci la dalee ba mbokkam xaabil bu leen bañante yonent bi sallallahu alayhi jàngoroy jiit yi leen jiitoon mu ngi waaj a dugg ci seen biir mooy bañante wax ne bu leen yàqante seen diggante diggante bu yàqu dafa wax ne fasaadu zaati lbayni hiya alxaaliqatu diggante bu yàqu mu ne mooy watkat bi waxuma ne dafay wat karaw la aqulu taxliqu taxliqu alchaara nama taxliqu diin mu ne diggante bu yàqu mooy watkat bi waxuma ne karaw lay wat waaye diine ci boppam lay wat te loolu ci jeexi ci kañaan kañaan la bokk sàngara naan ko lu mu bon bon yàlla bi muy wax ci sababi bon yi inna ma yuridu sheytaanu an yuqia baynakum aladaawata walbagdaa fi alxamri walmaysiri wa yasuddakum an zikrillahi wa ni salaati fa hal antum fa hal la wax seytaane dafa bëgg a jëfandikoo sàngara gis nga bu koy aaye xam ne mun naa yàq lu bëri ci société pour indi nooneel ci seen diggante ak bañante ci sàngara ak ci carte nga xam ne carte kat yi nga xam ne ay xarit dëgg lañ buñ kartee ba kii dàq ko desew dara mu ne ko njol mu bañ xam naa léegi am na beneen baal bu ñuy wax waaye bu njëkk loolu la gars yi doon wax dàq na la ba nga jeexal nga ne ko may ma dara ci li nga ma gañe ñu kartaat te mën nga ko may may benn benn cinq mu gañaal boo ne ko may ma mu bañ dafay mer bu meree yow booy ku nangam de am saaga boobu li tax garaawul mooy ndeyam kenn xamul mooy kan xanaa eené rek moo garaaw waaye alxuraan ne dafa bëgg a jaar ci sàngara ak carte naan ko ci sàngara yi tim ñi ci maîtriser wut seen bopp waxtu nekk bu ñu naanee ba pare rek da nga dégg ci baar bi ñu tojante butéel te du ñu génn xarit lañ kon yàlla daf ko aaye ngir jikko yi bon yi nga xam ne moom lay def da leneen door cee tegu loolu nag kenn du ci sukkandiku wax ne man mën naa koo def te duma ma àggale kon jikko yu bon yooyu kon man bokk ma ci ñi ko aay mu ngi mel ni bu ñu ne la yàlla daf laa digal julli pour jikko yu baax yi ngi lay def mënoo wax ne man kay am naa jikko yu baax kon man mën naa yàgg yàlla dafa wax ne julli pour fàttaliku yàlla waxal bu doo wax ne man fàttewu ma yàlla kon mën naa ñàkk julli léegi yàlla bu la digalee da ngay def waaye l'islam comme dafay wax a xel yi moo tax toujours دفلي أم يوم خمني دفلي شيء يبو أكيس خل وفكر أكو شيء عاطفة العبادة بينا خمني جامو يالله دق دق برام خم خم بنقول يوخ دني وخنا موي الخدو ممزوج بالمحبة موي تروح لبو خمني دفع أندن بجيل تروح لبو أندن بجيل ما نام دو خارني فرصة لبرنا دفكو بو أكو تفوف صح كون غا أكو شيء تروح لبو خمني دفع أندك رجال غا خمني يني يني أكو شيء إفك ما نام فبراير كنيان بينا خمني بنيل لطخ dafay indi nooneel lu tax nooneel dafay indi rayante lu tax rayante dafay indi guerre guerre yooyu moom mooy tax dëkk yi dootuñu nekk ci jàmm nit ñi duñu am jàmm duñu am jàmm ci seen bopp bakkan yi duñ óol booy nelaw doo am kóolute te lislaam dafa bëgg nit ñi am kóolute ci seen bopp moo tax valeur yi nga xam ne nit ki mu ko am lislaam daf ko ko gardeel ba pare oote yoon yoo xam ne nii daf lay oo pour nga garder loolu ci yar bi nga xam ne moom la la yar saa kont ngay ragal nda yow dañ laa war a mbugal wala waruñ laa mbugal yontu sallallahu alayhi wa sallam boo seetee yàlla nag laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa maahumul kitaaba wal miizaana li yaquuma annaasu bil qist wa anzalna al hadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaafi'u linnaas damaa wàccee téere yi damaa yónni suma yonentu yi jox leen ay kawteef ay bidal leeral wàcce ci ñoom téere wàccee ci ñoom téere wàccee ci ñoom sharia bu ñuy màndaxa maanaam atey ngir lan ngir nit ñi taxawal maandu mu mel ni essence bi jiitu pour yàlla yónni yonent yi mooy dafa bëgg a taxawal maandu te ci société maandu buñ ko waxee ci la nit ki amee droit civil yi muy am yépp ci la koy amee ndax ci biir maandu te ci lañuy ñuy tegee atte bu jaar yoon ci la nit ki amee droit ci lépp loo xam ne maanaam ak niteem may na ko ko ci la amee droit émo ci atte ak képp koo xam ne moom moom dafa dañoo séq atte donte njiital réew la donte buur la donte moo ko ëpp alal donte moo ko ëpp daraja donte ay waajuram la donte ay noonam la mu teg loi boo xam ne nii maanaam ñépp ñoo ci émo kenn du jàggati xaq kenn mu bañ tooñ ba nga xam ne am na boroom xam-xam buy wax sheltud mu ne gisuma alxuraan lim ittihoo tawxid ak lépp mu jëfandikoo baati doole jëfandikoo weñ ci dara lu may ci bunte taxawal maandu bi nga xam ne nii moom la wax nii dem na ba nga xam ne pour taxawal maandu boobu ak jox ku nekk la nga xam ne moom la xeeyoo ba àgg ci dimbalante bi nga xam ne da ngay foog ne du force dafay àgg foo xam ne ni dafay nekk force ci lislaam ndax ibnul hazmi dafa wax ne mu ne jullit amul droit xiif ba lekk métt mbaa mu lekk mbaam xuux maanaam lekk loo xam ne dafa xaraam te fekk am na jullit bu dend ak moom am lu ko doy lu ko ëpp loo xam ne kële mën na cee lekk mu ne dafa war a dem ci kooku mu jox ko bu ko joxut dafa war a xeex ak moom ak doole te loolu li tax lislaam def ko mooy daf lay fegal daf lay fegal buntab ubbil nit ñi buntab xeex ak këf alali nit ñi parce que bu fekkee ñi amut duun ne dañoo amut ngir seen yaanaani waaye dañoo amut ngir ñi am ñoo téye alal ji bañ koo joxe. day laa yakuna dawlatan bayna al agniyaa minkum alal ji rek féetee boor boobaa dafay indi mbañeel goo xam ne mën naa tax ñi jug mbooloo jug pour indi ay guerre yoo xam ne nii ñii amul dara ñoo ko indi te li Ibn Hazm wax noonu daf ko jëlee ci lislaam la ko jëlee bu wér ndax Seydina Omar dafa am koo xam ne ay fero xale yoo xam ne Haatib ibn Abi Baltaata mooy seen sang xale yi dem sàcc benn gëlëm rey ko lekk Seydina Omar di laajte ba xam ne xale yi kii mooy seen sang mu gis ne seen sang moo leen sàggane xiifal leen bañ dem di jël gëlëm jàmbur di ko di ko lekk xale yi def leen rayoon gëlëm gi defut leen dara seen sang la fayeeku ba pare diisal ko ci kawam pour bu mu sàggane ñii mu sàggane moo tax Ibn Hazm wax ne ku xiif ba amuloo loo lekk amoo droit di dem di lekk lu xaraam bo amé sa mbokk julit bo xamné mu ngi amé dara bañ la ci jox boko ñaané mu bañ bo xéx ak mom boko rayé moy safara la jëm bu la rayé safara la jëm parce que koku dafa bew ta yàlla mo wax ne wa in baghat ihdahuma ala al ukhra fa in baghat ihdahuma ala al ukhra fa qaatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri llah ku bew dañu wara xéx manam ki xif bu rayé kim doon laaj pour lek mu bañ ki ñu rey mooy dem safara ki bañ bu raye ki xiif tim doon ko laaj moom mi rey waa ji ba tey moom safara la jëm loolu la Ibn Hazm te loolu uh, borom man bi ci ñaari wàll yëpp daal moom mooy pert parce que uh, yàlla ku mu jox loolu ëpp rek pour nga dimbale ñeneen ñi la yonent salaay salaam moo ko wax man kaana lahu fadlu zaadin falyaud ala man la zaada la am ci yóbbal sax lu ëpp yóbbali benn nit mu ne joxal ku nga xam ne amul yóbbal yéen ci tukki man kaan lahu fadlu zahrin falyahud ala man la zahra la ku am lu ëpp benn place dimbaleel ki nga xam ne nii amul place wa hakada wax na sim salallahu alayhi wa sallam ne taamul waaxidi yëg fii isnain lekk benn nit doy na ñaar nit ñi dañoo soxal rek moo indi ci coono bi yëpp l'islam pour taxawal maandu jaare na ko ci bunt yu bari ci la indi shura bi nga xam ne moom mooy diisoo bi nga xam ne ba tey ci la réew yi taxawee tey jii mooy comme assemblée yi nga xam ne ñi ngi koy taxawal nga xam ne euh, xeet bi buñ amee lu leen métti askan wi buñ amee lu leen métti foofu lañ koy waxee waaye waxut koon rek rek tëral tëralut ko ci benn façon boo xam ne dafay way nga xamne bu adina avancé do ci meuna a avancé waaye dafa wax ne da ngeen diisoo mu nek lo xamne daf ci ubbi nit ñi ubbi ci seen xel yi bu nit ñi avancé man na ànd ak fi seen xel yi tollu ak fi seen soxla yi tollu wa amruhum shura bainahum day wax yonent sallallahu alayhi wasallam wa shawirum fil amri na nga ak ñoom te loolu yonent sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def ba nga xamne ne bi mu waree génn ci ghazwat Uhud sax nga xamne mag ñi dañ ne nañ toog biir Medina Euh, ndaw yi ñoo forcé ne il faut ñu génn ndax mag ñi dañ ne Medina masuñ loon a gagné ci seen biir dëkk waaye biñ diisoo gis na ndaw yi ñoo ëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yi la ànd ndax euh, pour topp rek euh, diisoo gi nga xam ne nii moom la yàlla santaane diisoo googu ba tey moom la bàyyil ay saxaabaam seydna aboubacar siddiq bi nga xam ne moo gën ci umma bi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne dañ koo fal jàppul ne moo gën nit ñi ndax lan la wax inni wullitu aleykum wa lastu bi xayrikum dañ maa fal ci yéen ma jiite leen waaye du duhul ne dama leen a gën maanaam jiite gi taxul tegtalewul gën donte Abubakar moo gën waaye dafay jàngale foofu ne jiite nit ñi taxul nga gën leen te tim dafa am lu nit du xam lu nit ñi di jaawale ngëneel tim du la may droit boo xam ne du sa droit alquran jàng nañu ne ku gën a ragal yàlla moo gën waaye loo ragal yàlla may la droit ci 1000 francs boo xam ne booy borom mayu la ko diw ko gën mën naa jël 1000 francs bi déedéet ngëneel agut foofu mu ne dañ maa jiital ci yéen waaye gënuma leen bu ngeen ma gisee ci dëgg fa nii wa saddiduni bu ngeen ma gisee ci dëgg na ngeen ma dimbale na ngeen ma dëgëral bu ma jengee ngeen jubbanti Seydina Omar ba mu ko waxee am na ku ne boo jengee ci suñ jaasi yii lañ lay jubanti suuraa boobu dem na ma ne ba buuri jullit na Omar taxaw ci minbar ne dafay changé can yi jigéen ñi hindu taxaw ne ko dangaa juum ndax aw aateytum ixdaahunna qintaaran la yàlla wax te qintaar alal ju bëri la dégg nga kon yow waroo koo ñëw di ko def loi loolu nag terewut ne nit ñu baax ñi seeraluñ seen may eh, doom yi dañ leen joxe àddiyee sax ngir yàlla dañ leen joxe àddiyee ngir yàlla pour yàlla def ci ñoom barke bàyyi fa may ay doom yu mag mu nga bind ne dama leen a àddiyaale ngir yàlla waaye waruñoo def luwaa tim ne bu kenn may jigéen lu bari ndax ku am sa xaalis bu ko may sa jabar juróom fukki kër nga am tey ko ñaar fukki kër yi dëgg dëgg kenn war la ko am ndax bàyyi mooy jàngale loolu ci firi alquran mu ne yonti yàlla Shuayb ba mu bëggee may yonti yàlla Moussa kenn ci ñaari doomam yi inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya haatayni ala an taajurani thamaniya hijajin fa in atmamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashuqqa alayk dama laa bëgg a may kenn ci sama ñaari doom yu jigéen ñi ci sart nga liggéeyal ma juróom-ñetti at boo ko defee fukk baax na waaye man bëgguma laa sonal naa doon ci xaw naa cher bàyyi mu ne juróom-ñetti at boo ko defee fukk baax na mooy lu nit am ci teraanga war na koo mën a defal jabaram waaye bëgguma laa sonal ci mooy sikk nañ kuy sonal gorom waaye kii ndaw si li mu doon bañ rek mooy Seydina Omar def ko luwa ay jigéen ñi loo xam ne nii mën nañu am am na jëkkër yoo xam ne nii am na koo xam ne dëgg-dëgg bu ñu laajee jëkkëram million sonal nañ ko waaye am na koo xam ne jëkkëram bu joxee cent million tim du la boo ko yenee sa jabar may ko wàññiwut dara ndax euh, baax ñi la gën a jege ci nga gën a war a baax yonent sallallahu alayhi wasallam mooy ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli baax ci yéen mooy ki gën a baax ci fameem te mu ne man maa gën a baax ci sama fam waaye comme shura boobu bu ñu ci doon taxaw mu jël lu bëri suñu waxtu atte bi nga xam ne maanaam maandu bi nga xam ne lislaam daf ko jàngale teg ko société bi war cee doxee maandu goo xam ne kontewut kii buur bi la kii buur jullit la wala nangam ba nga xam ne jàng nañ ay buur yoo xam ne nii dañuy atteeg keneen ñu jox kooku dëgg gis nga Seydina Omar waxam ji nga xam ne ba nga koy wax dégg nga àddina tey bi dix-huitième siècle rek lañu xeew gannaaw révolution France bi gannaaw Amérique seen discours bi dégg nga waaye ba naa Omar di wax matasta'badtumu naasa waqad waladatum ummahaatuhum ahraaran kañ ngeen def nit ñi ay jaam te fekk seen yaay yi jur leen ñi nekk ay gor boobu àddina àggut foofu te ba léegi àddina paaseegut foofu ndax ba léegi nii ñi ngi jaamloo nit ñi ba léegi nii monde bi gën a développé ñi ngi jaay bu ñu la waxoon ñaata jigéen la ñuy jaay ci at diggante Europe ak Amérique jaare nii bu ñu la waxoon ñaata xale la ñuy jaay ci at doo gëm ne loolu mu ngi xew ci àddina bi tey nga xam ne nii ñi xamul jàpp nañ ne civilisation ñoom rek ci nekk droit de l'homme ñoom rek ñoo ko sàmm te fekk lii toroxal doomi aadama yépp gannaaw bu ñu bindee ba pare lii toroxal doom aadama yépp ci ñoom lay jugee parce que yar bi nga xam ne moom la lislaam di dalee mooy yar xol bi yar njiit gi yar buur bi ba nga xam ne bu kenn fàttoo sax moom yar boobu mu ngi ànd ak moom maandu ba nga xam ne danga da nga dem ci atte ci yaag buuri jullit Seydina Ali ibn Abi Taalibin dafa am koo xam ne dafa for mu koongam mu dem benn yahud for ko yahud bi bi nga ko foree Seydina Ali dajeeg moom ci Seydina Ali boobu mooy buuri jullit Seydina Ali ne ko mbub mi maa ko moom yawut bi ne ko maa ko moom ñeneen nañ dem ci attekat Surayh al Qaadi attekat bi nga xam ne Seydina Ali mooy patron am ndax mooy xalifa bi mooy buuri jullit mu war a si àtte Seydina Ali ak ab juif duut sax jullit dafa def ni mu doon def rek mu doon àtte yahud boobu ak benn eh, simple citoyen ndax dafa laaj Seydina Ali ne ko ana luy sa tegtal ne yaa moom mbubb awma tegtal mu ne al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar comme moo tegtal ki ootee yaa indi tegtal ki weddi door a gëñ comme moom amul tegtal nag moo ne waa ji daal comme kii amul tegtal moom wax ji soriwul yaa jëlal sa mbubb nga dem waa ji dem ba ca yoon wa mu dëpp ne ma hada illa xukmul anbiyaa lii daal du lu may atte bi yonent yi nga joteeg sa buuri dëkk te moom sax moom moom xàq waaye comme amul tegtal buy tegtalee na moo ko moom rek ñi delloo la ko mu dëpp ñëwul ci Seydina Ali wax baati seede yi ne ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah Seydina Ali ne ko ama waqat aslamta fa dir'u lak yow yow it comme jébbalu nga man it sama mbubam koog mi may naa la ko sawar bi mu sawar ci jébbalu gi waa ji jébbalu waaye loolu amu ko lu may lum nekk exemple bu wér يونت يا محمد صلى الله عليه وسلم يونت بي موكو نيكي ان انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لول لو كو ورال اي بي لوتاخ مو واجي بن جوليت بو ساغان مو ساتشي ديم دينكو بن يهود تاتشي جي فاج مو نيهود بي موكو ساتشي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd waa ji yàlla wàcce aaya setal yahud boobu ba pare gàggan ci yonent bi sallallahu wa sallam ci yar boobu yàlla yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yar Seydina Ali ci la seddana Ali jële yar boobu ci la jubalee yahud boobu moo tax di askanu ci lislaam li gën ci askanu ci lislaam mooy askanoo ko ci jikko yu baax wane exemple boo xam ne ni exemple bu baax ndax ba Seydina Ali jëfee rek toogut di wax ci jëfam rek ci lay bi xamee ne ma hada illa xukmul anbiya ñun ñëpp tim li ñu askanu mën nañ ko wéral bu wax lu baax jotee nañ wax waaye am na lu gën a wér wax yi mooy ñi dëggal ko ci suñ jëf dëggal ko ci suñuy action yi nga xam ne nii moom la ñuy moom la ñuy l'islam may na liberté comme ni ko àddina tey bi soxlaaxee l'islam dafa maye liberté d'expression maye na nga wax li nga gëm maye na nga gëm li nga bëgg a gëm lakum diinukum waliya diin wax ne la ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy forcé amul ci diine l'islam maye na ba may xale yi ñi wax li nga xam ne moom lañ bëgg a wax te kenn du leen tere abdullah ibnu zubayr boobu xale bu ndaw la na omar ni nga gis mu wegoo ba yonent bi sallallahu alayhi omar fu mu jaar seytaane jaar ci beneen yoon wi seydna omar dafa génn xale yépp daw abdullah ibnu zubayr moom taxaw taxaw te mu bañ a daw ah seydna omar ne lu tax xale yi daw yow dawoo mu ne ko man tooñu ma la pour war laa ragal yoon wi xatut na war laa ko te Omar mooy mooy ki ñépp gën a wekk waaye bi xale bi waxee loolu gisul ne xale bi dafa wax lu mu war wax ndax xale bi dëgg rek la wax moo tax wax ko daal boroom xam-xam yi mag yi ci seen jotaayu jàngale xale daana leen gàgganti ñi nangu ko dégg nga bàyyi ngi nettali ne imaam Malik ba mu nekkee xale lii njëkk a wane ne ñi xam ne kii nii ku xeewu la dafa fekk benn boroom xam-xam buy jàngale di wax ne kulli yawmin wa fi sha'nin mooy lan imaam Malik xale su ndaw la mu ngi taxaw ne ko da ngay leeral wala da laajte mu ne ko damay laajte mu ne kon wàccel minbar bi ma toog mu wàcc minbar bi imseeni yàlla waxtu nekk mu ngi ci mbir mooy lii moo ma moo ma ñi xamee ci ne kii nii maanaam boobu lañ commencé di bàyyi xel ci moom xam ne kii kuy am avenir la dégg nga ndax xale yi léeg-léeg seen i tontu rek dañ ci xamee xale bi nii kan la imaam Mouhamad Abdou Saad Mouhamad Abdou dafa mas a ñëw ci benn classe di seet ay xale fekk xale yi ñu ngi leen ñu ngi leen jox benn Maodo nu tudd incha dañ leen a jox ne nañ comparé guerre ak xay xeex ak xay ak guerre bu xeex ak ak jàmm ban moo ci gën ah xam nga ñun ñu neexul xel yépp moom bu waxal moom buñ liñ mën a lay mooy ne jàmm moo gën jàmm gaa moo gën waaye ku ko mën a lay ku mën a wax ne ah, guerre moo gën ba pare man koo lay kooku xam nga borom xel lay nekk muy wër xale yi di seet seen i bind mu fekk benn xale bu ñuy wax abbas mahmoud aqad moom mu bind ne guerre moo gën yan moo gën ba pare nag di développer xalaatam boobu parce que mooy lii mooy génne jàmbaar yi mooy wane lii mooy wane lii mooy wane naa la bind ci lu bëree bëri mu xool ne kii kan la ñu bi mu ne ah xale bi dana am la am mais saalam bi doon toog di jàngale ñi dem ba am doctorat ñooy ñëw wër ko waaye du xel mu neex rek dafa dem di jàng xale yi am nañu ci neex xel te nangu ñoo jàng sax nangu ñoo sax tëral kon ku ci neex xel na nga jàng boo neexee xel te jàngoo da ngay tari lu néew euh, lislaam kon diine jàmm la diine solidarité la diine euh, liberté la euh, diine justice justice la dégg nga diine nite la te loolu yëpp ab yaram daf koy jàngale bu waxtu bi xam naa ne buñ ci toppee dañ génn waxtu julli te loolu ñoo ko bindoon waaye liñ waroon a wax ci conférence bi dëgg-dëgg dugguñ ci sax muqaddima bi ci lañ nekkoon waaye li nga xam ne moom lañ bindoon nga xam ne ba may am jot laa ko mosoon bind laalu ko waaye ñu ngi sant yàlla ñu ngi gërëm di nuyu kilifa yi nga xam ne teew nañ fii ci suñ gannaaw Cheikh Mouhamad Abdoul Malik mu ngi nii ñëw na jigéenam suñ tànt ba tey Seyda musalamata mu ngi ne Cheikh Mourtada Serigne Mbaye ñu ngi nuyu Cheikh Diaw Gilles ñu ngi nuyu Assane Sow ñu nuyu président Ansar Dine di nuyu mbooleem rek ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw di xaat Seydou Babacar mu ngi yoon ci yoon bi di ñëw dafa teewoon ci jotaay boo xam ne comme jotaay bi la. sànni daal suñu bopp président bi ci jotaayam ñooñu ñu ko nuyu. di ñaan yàlla mu nangu ñu suñ koor ndax mu ngi sottee def ko ci képp ñuy dégg ñu ngi ñaan yàlla suñu réew yàlla def ko ñu génnee wane ne addiyee imaam mu ngi nii ñu génnee addiyee chérif Seydina Abidine ñu ngi nuyu muqaddam yëpp ñoom ñëpp ñu teew yëpp daal اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو اتم ناصر حق الحق هذه الى صراط المستقيم على اله حق المختار عليه لا تذكرنا بالاجابه عين الحلال وانفسنا وباهلنا وذرياتنا واصحابنا واقدامنا احبابنا وانصارنا من حضر من الجميع وغابنا زدنا وعسنا وقنا ودافعنا وعقبنا سدد امورنا دارنا وقلوبنا ويقهر ايامنا يوم لقائك استرنا بصدق الجميل وامنا بالشكر الجميل صدق الجميل صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم